asalaamaaleykum mbokk internet yi tey ñu ngi fi nga xamante mooy nga xamante ni mu fekk mu ngi amoon ñu fekk Boury mu nekk série Balla Gaye de doon ko président Boury ñu ngi lay ziar. mu ne ko fu ma mu ne ko da ngay ziar ci Muhammadu Rasulillah maa dugg sa néeg yaay ñëw fekk la fii jotaay bi daal ala doom la moo waral sa teewaay tey bu soxlaa damay jël sama alal dem yëkkati def ci seen baay kon dox nga sa doxinu yaay Omar Sakho bu soxlaa guddi a ah, gaaw nga ci muy bëccëg gaaw nga ci buri wàcc jigéen ju mën góor nii lay mel sama yaaya liggéey jar tawa ku sa yaay liggéey boo demee ci mbooloo ñëpp xam ko sama maam nee na ma teraanga nag suuru gor waaye dina ko wan yoon bu riba jëli kuy nëbb yàlla nga ko dëgg doo jàpp dara te sama maam nee na boo daan nàkkee la boo rootee foofu da nga koo war a suukar naan ca sekk mii nag yaa wuy li la de yal na ko yàlla lafal ca ak ñi ci ginnaaw ah? barki yonent bi li muy way sentiment bu rëy laa ci am ci xol bi dugg ci xol moom mooy njëkk a am na ay xarit ndax boo xoolee fi ñu yëngatoo mu mel ni fasuy rëppatal kon yéen muy wayal yéen a ngi yëngu mel li ñuy def bu nekk suñu xol yi yal na jàppam yàgg te yal na eggale na eggale nga jar a ñaan suñu fantama yaru lool toog waaye Aliou balaa caata commencé dama bëgg a ñëw di wax li ñu waxante woon. maa yóbbu woon sa waru gar daagul nga ñëw rek. man ñaanu ma xaalis tey ñëwal def sa war jox ma ma def sa poche mu jeex caat way way wi mu jeex caat kay way ba taxaw di sawe. Ah? li may tàggatoo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw di sant lim bu baax a baax a baax di ko wax ne euh, li mu def yàlla gis na ko yàlla rek koy fay. love, but we are borom bis bi grand ligne Seck nga am kan doon ko présenté grand ligne maa lay ziar. daal di ziar gis nga rek sante yalla rek. nit mom jemal am ak ñu jàmm boo amee bo xew la ñepp fekk ci la jàmm rek mo fi nek wa buri dama nek jigen bu baax nek sama xarit nek sama xarit nek sama jabar jëkkëram ci sama xarit yalla def ñu am luñu dund man ak jëkkëram am fuñu jaar wa loolu mo waral ma tuddé ko dom, may ko premier njëkke tuddé ko dom te dom bokoy tuddé da ngay xool parce que jikko tamit dafa dasi dasi baax dasi bok buri wu neew ma sama diggante ak Balla Gaye mais dafa am lu ma ji té nit mom bu la jiwé teraanga rek li ra nga ko mëna fay moy tuddé ko dom té tuddé dom bi ko tuddee doom euh, lu ma neex la té lo xamni ni lu ma la yalla def ko kon damay sante yalla suñu borom loolu mo ma buri bàccale Balla Gaye sama xarit la Balla Gaye moom ñëpp xam nañ sama xarit la kooku man mënu ma wax parce que kooku zéro kooku mbër la mbër boo xam ne yow li nga am bokk nga ak ñëpp Balla Gaye 2 caat sax moo ko fay Balla Gaye 2 mooy lépp Balla Gaye 2 lépp moo ko def kooku man mun naa ni nit gënu ko si àdduna Balla Gaye 2 lu ñu boole dafa bari du lamb rek moo ñu boole avant lamb tey yàlla may ko ma xeeb ma benn yoon loolu moom boole Balla Gaye 2. Ndeye mu nekk jigéen bu baax jëkkëram ci sama xarit mu yaatu nekk jigéen boo xam ne Ndeye Gueye dafa yaatu sama xarit la jëkkëram ci sama xarit Ndeye Gueye lu ñu boole dafa bari mu baax loolu nag oyof loo woo mu fekk si la Ndeye loolu moo ñu boole ñu ñaar li may tàggatoo sant yàlla li ma doon ñaan yàlla defal na ma ko mooy bis bi. yàlla dimbali ma si mu sotteeg jàmm yàlla def exemple doon sama xarit yëpp wuyu si nañ ma maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp surtout ma Balla Gaye buri sama xarit yi ñoom Alioune Diop sama goro Ndeye Demba euh, Luyen ñëpp ñoom Ousmane Sow ñoom ngaalam si Italie Ousmane Sow ñëpp maa ngi leen sant di sant sam benn copain bu naa ma ñëpp ñoom Lom Forcé ak Ngaamu Bouba Diop Baara Gassama Modou Fall. ñëpp sama jabar Yacine Mbaye du ko sant ko gërëm samay rak nday Seck asu caam sama yaay ñëpp bis bi ñëpp a si jàpp ku lim juum sama boy yi ñoom Fallou ay ñoom jaabi boy yu mboto yi ñoom Ousmane Ousmane mécanicien ñëpp ñëpp yéen càndum ak yéen tam da ngeen baax yaatu sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. waaw moo kenn doon li ba tey ñu fekk fii la grande danseuse Ndeye Gueye ko présenté soxna Ndeye Gueye ci les ziar. maa ngi fi rek bu koñ rek bi may sëy dëkk di sama xarit du jëkkër buri bàcc di sama xarit Balla Gaye di sama xarit ñu tuddee buri yoom di loolu waral sama teewaay lu may waajal bàyyi mu doon surprise rek déedéet déedéet bàyyi mu doon surprise boo ko waxee dootu neex baal bu doon après baal bu doon après. waaw boo ko intoon di ba tey ñu fekk fi le grand champion poids waaw maa ngi leen di nuyu leen sant bu baax. ah. sonn moo tax ñu passé lépp ñëw pour jàppale ko suñu tool ñaari yàlla li mu bëgg moo xam tool war a demee ba jàmm ak tawfeex parce que seen naam war na. ah waaw sama kàddu gu gudd xanaa di ko ñaanal jàmm rek te ay moom Baye Fall la góor yàlla ko di ko ñaanal jàmm ak salaam di doole si Fall barke Alxuraan